Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour la version française, la version Wolof dans une poignée de secondes. FM mbokk dalee nekk jàmm ci seen xibaar naka li ci gën a fees mooy dinañ waxtaanee ki nga xamante ni moom moo di uh, Aliou mi nga xamante ni moom nag moom mi moo nekk nag coach yu gaynde yi buñ ci jógee nag dinañ waxtaanee woykat bi la di uh, Prince Kadou mi nga xamante ni moom nag def na ci wàll musique lu tolloog fukki at ak juróom-ñett ba tax na nag ñibbisi war na ci dëkk gi ngir uh, daal di gagné li nga xamante ni moom mooy di public sénégalais léegi léegi ñu jàll ci yaatal bi. wàllum actualité nag ñu tàmbali ko ak euh, li nga xamanteni ni moom mooy di euh, concert ba amone ci université Charente Diop bu Dakar waa King FM andon ceeg euh, awa ji ñu amone tamit invité d'honneur ki di Omar Pène ki le 21 juin bi ñu bu ba tey wàllub actualité ñu waxtaanee li nga xamante ni moom moo di fukk ak ñetteelu édition bu euh, festa mi nga xamante ni moom moo di festival international bu hip hop ak it culture urbaine festival boobu la nag lim doon féete moom moo di 30 euh, ans wu hip hop Galsen ba tax na nag festival bi la ñu ngi ko créé ci atub 2006 euh, kii di directeur bi nag mu ngi wuyu ci turu Amadou Fall Ba ba tax na nag festa bi la nag ni ñu ko defee woon mooy di dañu koo xaaj ci ñeenti parti parti ba ca njëkk nag moom moo di ci euh, partie euh, hardcore bi nga xamante ni euh, dana ko bàyyi woon ak artistes yi nga xamante ne ci wàllu moom la ñuy lu ci mel ni nit dof ak yeneen ak yeneen li ci topp nag ñu daal di koy tuddee nag open stage bi nga xamante ne amoon na ni ki jeudi foofule ca fi nga xamante ni moom moo di Douta Seck nag artistes yi rappeurs yëpp nag lanu boole muy hardcore beeg yeneen ci des nag buñ ca jógee nag ñu daal di def ni ki aljuma next stage bi nga xamante ni li mu regroupé nag moom moo yoo xamante ni ñoom ñoo di euh, nouvelle génération bi du ci mel ni ay euh, type dund gis les diwan ji ak ñeneen ak ñeneen ngir tëj événement bi la samedi nag amaloon nañ li nga xamante ni moom moo di gold stage bi nga xamante ni dañ koo jagleeloon woykatu hip hop yu yàgg yu ci mel ni waa Positive Black Soul Yatfou Daddy Bibson ak it ñeneen ak ñeneen ba tey nag euh, ci wàllum actualité euh, amoon ngeen li nga xamante ni moom mooy di euh, Dakar Fashion Week bi nga xamante ne tàmbali woon na ni ki ñaar fukki fan ci weerub juin daal di jeex ni ki ñax fukki fan ak ñeent ci weerub juin li nga xamante ne nag moom moo di Dakar Fashion bi la nag thème bi ñu daal di tànn ren ji nag moom moo di may Africa mu nekk nag li nga xamante ne day promouvoir Afrique waaye dañu koy jaarale ci wàllub mode jeudi nag amaloon nañ benn conférence de presse ngir. wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taskatu xibaar yi lii nga xamante moom moo di programme bi ba tax ne nag ci ñetti défilé nag lañu ko daal amal défilé bi ci njëkk nag euh, euh, euh, yi nga xamante ne moom moo di jeune créateur africain yi bañ ca jógee àjjuma nag benn bu ci njëkk nag amaloon nañu ko ak groupe styliste yi nga xamante ne dañu jógee fépp ci àddina bi ñoom ñi nag ba ñu ñëwee nag am nañ ñañ ca ràññee yu ci mel ne bii baas bi Guinée Bissau créateur Versailles mi nga xamante ni nga jógee ca New York créateur parfait yi tamit nga xamante mu nga jógee ci Cameroun ak ñeneen samedi ba nag ñaareelu partie bi nag euh, yeneen stylistes yi sa desoon nag défilé nañ Adama moo daal di tëj bile défilé ni ki euh, démb euh, fukki fa ak ñeent ci weeru juin défilé street parade nag amoon na fële ca Kër Massar nag mu nekk défilé boo xamante ne dañ ko mayoon askan wa féete ba tax na nag ay jeunes créateurs yu ca mel ni Tipi ak Elimane Diouf nag ñoom ñi lee wane na fa li nga xamante moom moo di seeni modèle bu ñu jógee nag ci wàllum actualité ñu waxtaanee suñu portrait bés bi ak ki nga xamante ni moom moo di coach Lion yi di wuyoo ci turu Aliou Cissé Fatoumata Bintou Touré muñ ci indi ay leeral tey nag portrait bi ma leen di indil moy Aliou Cissé mi ngi le 24 mars 1976 fële sa Jiguenchor. mu nek euh, deuk bu nek ci bir Sénégal mom nak nekkoon na fi footballeur international muy évoluer ci poste bu ñuy wax défenseur wala milieu de terrain bala mo ñëw nek entraîneur instant bi nak mom mo nek entraîneur de équipe Sénégal depuis 4 mars 2015 mu nekkoon capitaine du Sénégal ba dañu dem ba de de au coupe du monde 2002 Waye bala loolu côté international c'est nañu ko mom mi ngi bokone ci PSG and ak ñom euh, ba vice champion de France année 1999 ba année 2000 mu participé participer ci li nga xamné ne ne nañu Ligue des champions année 2000 ba 2001 mu daal ci am ñent jonganté yo xamné que ci biir compétition ba Ligue nako fa mom Aliou Cissé amul won temps bu bari nak motax après mu daal signer signé Montpellier ñu dem nak ci année 2002 ba 2006 Nous nak mu daal évoluer ci championnat d'Angleterre. Angleterre bi fa la nekkoon mu dem at contrat bo xam nek 16 Sedan Arden lañ ko tuddé 2006 ba 2008 Nous nak mu daal décider dem fi nga xam nek moy Ligue 2 ci Mims pour saison 2008 ba 2009 mu ànd ak wa Mims Olympique nak date bi di le 1er septembre 2008 nak boyé après contrat wam nak daal duñu ko wat ci saison bobu nak ñu ñew ci janvier 2012 mom suñu ancien capitaine nak ñu seetlu ne ko Aliou Cissé mu dellu ci wat fi nga xam ne ko que équipe nationale di nekk adjoint wu Karim Séga Diouf ci li nga xam ne ko moy équipe nationale olympique mu nekk sélectionneur équipe nationale après ci ñi nga xam ne ne que seen at wessul ñaar fukki at ci jeu francophonie 2013 le 4 mars 2015 nak. fédération sénégalaise bu football bi ñuy wax FSF ñoo ko nommé li nga xam ne ne que mooy poste sélectionneur mooy kii tànn ci équipe nationale A bi mu daal di remplacer Alain pour li nga xam ne c'est que mooy sargalam yi nag yegg na ba ci finale coupe d'Afrique des nations en 2002 fële ci Sénégal a une finale coupe de la Ligue 2000 chez PSG vice champion de France en 2000 ba rek mu ànd PSG quart de finale coupe du monde 2002 à Sénégal quart de finale de la coupe d'Afrique en 2017 ak Sénégal ba léegi la fa ñu en 2018 bi à Aliou Cissé mu entraîneur équipe nationale 2018 bi feulé Russie li mo portrait ou Aliou ñu jaajëfal ko bu baax moom Fatoumata Bintou Touré ci leeral li nga xamante ne moom la ñu indil ñu waxtaanee nag wàllum mode ak lii di seen morphologie ñu tàmbali ko nag ak silhouette A wala en pyramide ñuy xamle ni ñooñu leen nag ñoom ñooy ñi nga xamante ne dañoo am buste bu tuuti waaye itamit seen i hanche génn bu baax a baax ma tax na nag bu ngeen bëggee tànn nag seen maillot de bain ci kaw nag ñu ngi xamle ni maillot de bain à ngeen war di sol nag ngir mettre en valeur li nga xamante ne moom moo di seen silhouette waaye itamit euh, bandeau bi euh, dafay daal di euh, wone bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di seen buste ba tax na nag it ñu ngi xam la ni mën ngeen a uti it de bain boo xamante ni rembourré la ngir mu daal di gën a jëmmal li nga xamante ni moom moo di seen dënn ba tax na nag ci suuf nag mi ngi xam le ni mën ngeen a sol lii di bas de bikini bi nga xamante ni forme échancrée lay doon ngir daal di mettre en li nga xamante ni moom moo di seen i tànk ba tax na nag dafay daal di wane ñi ay tànk waxtu sew ngeen yor bu dee loolee ngeen bëgg waaye itamit nañuy moytu li nga xamante ne moom mooy di mailles de bain yoo xamante ni da leen di muur baax a baax ndaxte loolee dafay alourdir li nga xamante ne moom moo di euh, seen hanche ñuy euh, wax ni ni itamit li ngeen war a moytu moom moo di short yi ak bas de maillot euh, taille haute yi taille tamit noonu ko moytu bu baax a baax ndax loolu nag dafay daal di xëcc nit ñi ngir ñu xool li nga xamante ne moom moo di seen bassin ba tey nag ci wàllum silhouette ba tey nag di ngeen am it forme V wala itamit pyramide inversée ñooñu leen nag ñuy xamle ni ñoom ñoo ñuy am mbagg yu yaatu yi waaye itamit ay hanche yoo xamante ni moo gën a tuuti ñu ngi leen xamal ni nag maillot de bain forme triangle nag moom mi moom nag moom moo baax ci yéen ndaxte maillot de boobu boobule dafay daal di jëmal li nga xamante ni moom moo di seedi na ba tax na nag loolee nag nit ñi dinañ bàyyi xel bu baax a baax ci seen décolté pour suuf gi nag ñi xamle ni maillot de bain short yi nag moom ngeen war a sol ndax loolee nag moom mooy mettre en valeur li nga xamante ni moom moo di seen silhouette ndax loolee dina tax nag ñu daal di lii di short bi dina tax nag lii di seen kaw ak seen suuf nag tolloo ba tax na nag loolee mooy li gën ci yéen. jógee nag wàllum mode nag ci waxtaanee euh, wàllum euh, musique ak euh, suñu découverte bi lay di Prince Kadou mi nga xamante ne moom artiste auteur compositeur la moom mi la nag ca France nekkoon doon yëngu ci wàllum musique nag ñuy fàttali ni def na ci milieu musique nag lu tollook fukki at ak juróom-ñett ba tax na nag dafa daal di ñëwaat fii ci Sénégal ak single bu bees bi léemu di artiste bi la nag nga xamante ne moom ci lépp nag lay yëngu façon musique bu nekk lay yëngu nag amal nag ñun waxtaan jëmale ko ci carrière musicalam ay projet am Prince Kado mu ngi ci micro bu King FM Mise bi doon ko tàmbali filles au Sénégal fële ci Pout ak sama benn groupe bu tuddoon gëstu euh, donc ñu doon def ay projets toujours rester dans le dans le secteur de Pout mais au moment donné dans une musique bi donc quelque temps donc concentré aussi style cinéma ndaxte a naa ci ay euh, ay rôles ma comme acteur euh, chanteur sur certains films qui sont diffusés dans sur les chaînes françaises et donc le montage li monex mon deuxième single donc voilà donc pour projet album amener à mon euh, na le temps pour lier que aussi parce que musique aussi temps de laaj voilà donc mon mon ex mon deuxième single première ben on nekkoon Maam Bamba gennon ci le mat ak genn walu bi deuxième bi et huit c'est important de présenter une bonne qualité il faut avoir des très bons musiciens aussi et il faut caler des rendez-vous faut faire des séances de studio et ça c'est avec le temps de def reggae de def aussi pop de def aussi afro donc lépp les pour et ñu the world music bi musique internationale mais ouais bi lépp wolof la langue wolof la ci way muy lak bi mo namp projet moy génn album bi inshallah allah rabi fin d'année bi donc présenter aussi euh, qualité album bi ci public sénégalais bi. mom mi di euh, Prince cadeau. Euh, bu ñu ci jógee nag ñu waxtané walum tagat yaram ak ki nga xamante ne moom di sélectionneur sénégalais yi di Aliou Cissé mom mi nak yëkëti na ay kàddu nak ca kanamu taskatu xibaar ngir xamle ni lii di nul bi nga xamante ne dox na ci diggante Japon ak Sénégal ñaari bal fu ci nekk nag doon na loo xamante ne neexu ko loolu ba tax na nag muy xamle ni euh, ñoom ñi la nag euh, di équipe Sénégal bi la nag joué wuñu bu baax comme ni ñu joué woon premier match bi ba tax na nag waa Japon nag mën leen a dabe nag ba tax na nag ñu daal di nul ca match boobule bañ ba mu ca jógee nag xamle na ni euh, match bii lay nga xamante ni moom la ñu war a amal ak waa Colombie nag danañ ca def seen kéemtalaay kàttan ngir daal di gagné le match. match batay nak walum football nak ki nga xamantene mom modi sadio mané mi nga xamantene bu ñëk bele ci match bi le mom nak lañu daldi tab homme du match ci di bi ñu wàllum agenda culturel yi di jeexal nag seen xibaar yi di ngeen am danse noire autour de la technique akoni akoni ci stage international sur la technique akoni école des sables nak Niki ay fan nak di ngeen ko am mu tambali nak ci fukki fan nak juróom-ñett ci weerub juillet nak jeex ñaar fukki fan nak juróom-ñett ci weerub août fele ci Toubab Jalaaw wàllum euh, danse ba tey nag di ngeen am li nga xamante ni moom moo di euh, session kizomba mi nga xamante ni tàmbali na ni ki altine fukki fan ak benn ci weerub juin naray jeex altine ni ki euh, juróom ñeenti fan nag ci weerub juillet mbokk yi nag lii leen leen indiloon ci seen xibaar ma di leen jox dig daje suba incha allah